ki mu fa bëgg daal di teg mooy euh, Nafi Ngom Keïta bon mun naa nekk parce que politique lañ ko fa teggee woon ah. mhm. parce que benn rapport la bind ci Cheikh Omar Anne ak yeneen gestion yu bon Macky Sall teg ci coom-coom après ñu tëboon ñu jëlee ko fa. Mhm. Euh, mën nañu faa indiwaat keneen comme Seydou Moussa Ndiaye jaxate mi ko fa remplacé woon comme euh, ki ko fa remplacé nii nu mu tudd. sëñ Bassirou Guèye sëñ na faa nekk comme moom mun na ñëwaat. Mhm. loolu suñu problème.

existe suñu pour mën a fayeeku yow mii kilifa nga ne ko bët sa gémmañ mu mu mu xëcc la bàyyi la nga dajale loolu benn somme boo xam ni pendant xaw ma ñaata ak motul sax 8 millions c'est-à-dire c'est une honte. boo tàmmee jubati da ngay dem ba sa gémmañ niin te doo suur. xanaa man xanaa sax nag wax dëgg yàlla ma demoon bay sàcc moom dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dinaa sàcc comme ni waa APR yi sàcc nag sàcc gu mat sëkk. waaw waaw non ñoom dañoo sàcc sàccuk maa tey ñoom. ñoom dañoo sàcc ba doyal waaye ba rapport bi commencé génn ah yow amoo xëy amoo ngont 12 ans nga tabax ay immeuble di tudd fu la neex am appartement fu la neex. am na hectare suuf. foo ko jëlee delloo ba delloo baay métti di. Hein? delloo ba mooy métti. ah mais sàcc nañu sàcc fulla de. sàcc ma tey la waaye delloo gàtt yi nañu sàcc fulla mënoo fexe xoolal gubu basi la mënoo fexe ba fu mu toog du fa bàyyi pepp. ba si gubam foo ko teg rek pepp na fa amoo ci pexe gars yi lu ñu nangu nangu nangu nangu <laughs> dinañu sàcc loo lu gars yi yëgul est-ce que mhm. ku nekk loo sàcc la koy yat waaw ah, duñ waaye <laughs> dina feeñ de sëngeem de billaahi billaahi Baye Moussa mhm. gars yi li ñu sàcc gars yi li ñu sàcc mun na développer am réew

Qui foncier lay dugg ñetti Diwan, Touba Dakar Petite Côte mais quand tabax ni mel Dakar ak Petite Côte région bu Thiès euh nous waxé foncier aussi dañuy nous ak des meubles, Moussa. Mhm. mais même souf bay Moussa ben hectare souf yombul mais région bu Thiès ak de 50 hectares mom defu ci agriculture defu ci élevage defu ci dara mais suuf la bu nekk ci turam mu toog ci kaw ay milliards cinquante hectares C'est vrai, loolu loolu mënuñu ko bàyyi non non. tax jomaay dina li jënd ci immeuble yi am na ay sociétés yi nekk fii nii ni ñuy tabaxee immeuble yi noonu foog ñu bàyyi ci xel du du ma tudd du ma tudd gum ay société bàyyi ba ci kanam tuuti. Mhm. mais li nekk jomaay <laughs> jomaay non président du président xoolal gars yi dañuy wax ay détournement comme ñoom li Macky Sall ñëw attaqué ay Karim Wade indi ay enrichissement illicite mm-hmm. Diomaye mo xam ne waa non la wax mais bàyyi li nekk ci prête non fii Sénégal. bis bu feeñee bis bu feeñee fii non mm-hmm. moo tax ëff naa nag il faut mu nekk ci ay loxo yoo xam ne vraiment. Mm-hmm. parce que boobu maire bi maire Nafi Ngom Keïta bi muy def rapport OFNAC bi ci Cheikh Omar Anne booba Cheikh Omar Anne était intouchable rares sont des journalistes yu osé woon sax tudd Cheikh Omar Anne man de li ma si ñemewoon man Mamadou Fofana bu sen TV daanaka ñi ko ñemewoon bariwul intouchable Cheikh Omar Anne dem na ba yegg fekk oustaz Modou Fall ak oustaz Mohamed Mbaye mun leen jógee fi ngeen toog ci gàmm gu amoon Louga waaw ministre bu dem ci gàmm ay oustaz dem ci gàmm ñu toog yow yow sew sew yow yow sa otin may la yow sa kër yow may la nga ne oustaz yi fi ngeen toog neexuma ma seeni kanam neexuma ma dégagé wax sa wax say protocole ak sa sécurité ñu dégagé oustaz yi man leen yéen a ñàkk fayda rek na ma kenn dégagé ci ab tante set billahi kenn duma dégagé ci ab tante te ñëpp déggooñu ma yow di nga dégagé yow bougé wu ma fu ma toog laay wax yow empêché woo protocole bi mm. yow jotewoo protocole bi tous kanam oustaz yi neexuñu ko seen la TFM la seeni kanam tellement façon arrogance boo xamante ni dafa jéggi dayo loo xam ne kenn mënu ko imaginer. maire bi def ci rapport ci gestion bu bon kudd Pape ci condamné wax ci vidéo juge euh, bu ni ko yow est-ce que lire nga rapport bi mun ko liiruma rapport bi liiruma livre bi mais foog mu condamné Pape Alé. ci <laughs> loo teewul c'est tout loo liirul. foog mu condamné Pape Alé parce que Cheikh Omar Anne la tudd Cheikh Omar Anne était intouchable moom la ko foofu na doon wax bi ñu ko defee ministre de l'enseignement supérieur foofu na ni Macky Sall dañoo yem. tontu pat tap tap tap tap tontu. nga ne loolu Cheikh Omar Anne sax mun koo wax ci tubaab yi def ko ministre de l'enseignement supérieur.